jenko fuladun naaɓe on calminama on jettama e fulɓe mbiyoyo jingande to jeeyɗa wona naafigiyagal jingen jingen jingan en fula ɗum
mbokk yi di déglu rajo Mamakunda FM 88 point 7 ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa turam ak santam yéen a xam noo leen ñuy dégloo jamono ji ci biir département Bendero Fula yéen ñi nekk ci Koulinto yéen ñi nekk ci Buruko yéen ñi nekk ca Fafakuru yéen ñi nekk également partout ci département bi rawatina nag ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu également du côté de Dao dans le département de Kolda ceux qui nous écoutent également de l'autre côté de Vélingara ci commune bu Kandia ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ñaanal jàmm ak salaam fi ngeen nekk comme alxamis bu jot nañ koy defee incha allahu rabbi te tamit ñu ngi fii ànd ak benn chef de service boo xam ne ne moom tamit dafa am lu mu yore ci biir région de Kolda ba tax na tey ñu fas yéene waxtaan ak moom comme ni ngeen koy déggee alxamis bu jot ñu dalal benn chef de service daal di waxtaan ak moom par rapport ak li nga xam ne rek moom la bureau boobu di yëngu ci biir région de Kolda. te nag mbokk yi comme ni ngeen ko xamee ñu ngi fii tey ci bureau hydraulique bu Kolda. tey bu ñuy wax bureau hydraulique de Kolda dafa am ki fi nekk ku koy jiite ñu dalal ko d'abord mu daal di présenté wu.
man maa ngi tudd Moustapha Thiam man maay chef division régionale hydraulique bu Kolda.
Moustapha Thiam comme ni ngeen ko déggee moom mooy chef bureau hydraulique bu Kolda ni ngeen ko xamee tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne rek moom mooy. li bees li nga xam ne rek am na ci biir réew mi ñu bu ñu gën ko ñu tubaab di ko wax nouvelle réforme maanaam saytu bu bees boo xam ne def nañ ko ci li nga xam ne rek moom mooy l'hydraulique rurale mooy ndox bi ci biir ci biir dëkk dëkkaan yi tey nag monsieur monsieur Thiam tey bu ñuy waxtaanee d'abord hydraulique d'abord la ñuy njëkkee laataa ñoo ñëw d'abord ci réforme bees bi.
waaw jërëjëf donc comme ni nga ko waxee rek nun suñu liggéey. mi ngi jëm ci dëkku kaw yi donc ñu ñoo gérer forage yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkku kaw yi pour lu lépp lu jëm ci seen entretien lu jëm seen maintenance ensuite lépp lu nga xam ne aussi ci gestion forage yi ñun suñu loxo mu ngi si ak organisation yi nga xam ne def nañ ko ci forage yi maanaam muy ASIFOR wala muy comité de pilotage donc loolu mooy li nga xam ne moom lu ñuy liggéey d'une manière globale ci biir la région de Kolda bon lu ñu seetlu nag c'est que ci biir région bi am na ay forage forage yi nga xam ne dafa am répartition bi c'est inégal bu ñu xoolee ci département yi département Vélingara département Kolda département Médina Yoro Foulah am na répartition ba nga xam ne c'est inégal moo tax même revue PEPAM bi ñu ko mujjee def dañu xooloon ne taux d'accès ci ndox mi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo ndoxu forage dafa tuuti sa Kolda mooy région bu gën a dellu ginnaaw ci loolu mais nag loolu terewul que pour vraiment rectifier affaire bi que gouvernement bu Sénégal mi ngi réaliser ay forage ay forage yu bees te du ñu mettre accent accent bi yëpp ñu ngi ko def ci département de Médina Yoro Foulah boo gisee loolu nag li ko waral mooy d'abord ci biir département Médina Yoro Foulah forage li fa am dafa tuut dafa néew dëkk yu aussi ay dëkk yu peuplé ñoo fa nekk ay dëkk yi nga xam ne aussi dañu enclavé mais aussi pour jot ndox dafa jafe parce que ci yeneen département yi da ngay gis boo gasee cinq mètres wala dix mètres nga am ndox mais Médina Yoro Foulah am na ay gox yi nga xam ne da ngay gas ba quarante mètres ba cinquante mètres balaa ngay am ndox moo tax ci suñuy forage yu bees yu yu ñuy def ñu yóbbu ko ci biir département bu Médina Yoro Foulah et particulièrement nag ci biir commune bu Buruko waaw voilà tey di bu ñuy waxtaanee ci li nga xam ne rek mooy comme ni nga ko waxee répartition bi inégalul maanaam dafa am partie yoo xam ne ni ñoom ñoo ëpp ëpp ñeneen ñi lu ñu am dégg nee ngeen tamit Médina Yoro Foulah nee ngeen foofu tamit am fa ndox dafa nekk lu lu jafe loolu sax waaye ba tey yan jéego tamit la service bi tëral par rapport à ça.
bon d'une manière générale ah le jéego yi ñuy def rek mooy jéego yi nga xam ne moom mooy politique gouvernement bi euh, mooy réforme bi nga xam ne moom lu ñuy def moom moom lu ñuy nekk di def ci biir Sénégal yépp euh, réforme bi nag euh, mooy jéem a fexe ba forage ba gestion forage bi gën a jaar yoon parce que bu ñu xoolee bu njëkk forage bu nekk dañu fa defoon lu ñu tudd ASIFOR mooy association usagers du forage donc yow mi dëkk mi fële sax Fafakuru gis nga déjà yow sa forage bi toog na lu yàgg du dox te pourtant am na ASIFOR bu fa nekk ASIFOR yooyu yi nga xam ne moom la ñu tëral dafa dafa am ay jafe-jafe yu bari parce que nguuru Sénégal bu fekkee ñëw na réaliser forage forage lu mu tuuti tuuti tuuti ay cent millions moom dana ko te dana teg am na forage yi nga xam ne dañuy dem ba deux cent millions donc loolu dafa nekk ay investissement yi nga xam ne investissement yu rëy la yu am solo la loolu nag boo gisee état bi di ko def c'est pour que nit ñi mën a am seen droit seen droit lan mooy droit am ndox sénégalais bu nekk am nga droit am ndox Euh, mais malheureusement li ñuy def forage yi ñu ñu léegi dans un premier temps ñu confier woon gestion forage bi population yi seen bopp mais ñu seet toujours ay rëq-rëq rëq-rëq mooy dafa am ay conflits ci biir population yi parce que gestion euh, transparente amul ñu seetlu aussi que asifor yi souvent benn nit walla ñaar rekk ñoom ñoo koy gérer ñu seetlu également que des fois bu amee panne. asifor yi dañuy toog naan amuñu sax lu ñu lu ñu fayee lu ñu lu ñu def réparer seen forage loolu nag indi ay ay ay ay ay tolof tolof yu bëri parce que boo seetloo dëkk yi nga xam ne ñoo am forage ñoo gën a ñoo gën a néew par rapport ak dëkk yu amul yu amul ñoo gën a bëri te gouvernement bu fekkee investir na ay centaines de millions ci benn gox def fa asifor dafa bëgg gars yi mën a gérer seen forage mën a entretenir seen forage pour que moom itamit mu mën a continuer di def ay forage ci yeneen gox yi nga xam ne amaguñu mais avec ASIFOR yi lu ñu seetlu mooy à chaque fois bu paan amee dañuy dellu siwaat ci gouvernement ci état bi pour que ñu mën leen dépanner seen forage donc dañuy continuer toujours di investir léegi nag mu am benn réforme réforme ba nga xam ne dañuy jël forage bi ñu confier ko ñu def ko ay délégation de service public comme par exemple SDE nu mu mel ak SONES rek moo tax ci biir ministère de l'hydraulique ñu créé lu ñu wax office des forages ruraux mooy OFOR waaw OFOR OFOR nag day jël forage yi mu dénk ko benn privé ba nga xam ne am na moyen am na moyen pour mu mën a gérer forage yi pour que rëq-rëq yi ñu doon am maanaam conflit maanaam ñàkk ndox walla panne yu yàgg bu fekkee tey forage bi panne rek pour que waa ji mën a am moyen pour dépanner forage bi ci saa si bon am na fu nga xam ne nag ci région ay région yi nga xam ne boo demee région de Thiès région de Diourbel bon actuellement ñu ngi ci biir région de Tamba commencé nañ ko foofu joxe nañ forage yi ay DSP mooy délégation de service public mais lu ñu wax mooy balaa ñu yegg ci région du sud muy Kolda muy Ziguinchor muy Sédhiou balaa DSP di yegg si fii ñu ñu def ay gérant ñu def ay gérant ci forage pour cela lu ñu laaj mooy ñu mën a def ay ay ay comité de pilotage comité de pilotage yi nga xam ne dañ koy taxawal en rapport avec sous-préfet yi ak ak maire maire yi
comité de pilotage boobu naka lay demee naka lañ naka lañ naka lañ koy teg voilà comité de pilotage bi dañuy wut par exemple ay délégué ay délégué maanaam bopp nit ba nga xam ne yaa ngi jëfandiku forage bi da ngay am say seen délégué bon donc sàmmkat yi ñoom yu ñu yore ay jur yuy soxla forage bi ñoom aussi dañuy réunir ñu wut seen délégué groupement féminin yi ñoom it dañuy am seen délégué jeunes yi dañuy am seen délégué bon léegi nag ñu naan commune bi commune bi na wut na na choisir délégué léegi nag ñooñu nag ñooy comité de pilotage bi léegi nag ci biir comité de pilotage day am bureau. bureau ba nga xam ne dañ koy élire. mais président comité de pilotage bi mi ngi jógee ci délégué bi nga xam ne maire bi moom moo ko moo moo ko. joxe kooku mooy nekk président. mais lu jëm ci poste trésorier. ak poste secrétaire. kooku ci yeneen délégué yi lay jógee. ci yeneen représentation yi lay jógee. mën na jógee ci éleveurs yi mën na jógee ci groupement féminin yi mën na mais mais poste président rek lu ñuy wax ne ku jógee ci commune bi moom moo ko yor.
sànq yaa ngi doon wax ci ñàkk toppatoo forage yi bon peut-être parce que dafa am ba tey benn réticence walla nu mu demee.
waaw ñàkk toppatoo forage ñun lu ñu seetlu mooy biir région de Kolda bon loolu nag nekkul valable pour bu Médina Yoro Fula. mais d'une manière globale c'est que da ngay xool boo demee dans les milieux ruraux forage yi à partir du mois de mai avril mai lu ñu koy faral di utiliser te loolu day fekk éleveurs yi ñoo soxla forage mais nit ñi la plupart du temps dañuy préférer utiliser seen teen parce que fii teen yi xóotul kër boo dugg presque am na am na teen loolu mën a nekk raison bon am na beneen facteur ba nga xam ne gis nuñ ko mooy di ne ndox mi jaay ndox bi c'est-à-dire que ni ñuy fayee ndox bi moo jaarul yoon lu si gën a bëri dañ doon def ay cotisation forfaitaire ñu naan par exemple borom kër bu nekk na joxe 1000 francs bon loolu c'est pas c'est inégal parce que da ngay gis kër ba nga xam ne am na 12 personnes ñu laaj ko 1000 francs nga gis beneen kër bu am 4 personnes ñu ne ko 1000 francs donc loolu loolu aussi jafe-jafe la bon beneen jafe-jafe bi mooy aussi gestion forage mu ñu taxawalee Asifor pour contrôle Asifor bi pour ñu mën a contrôler Asifor mu rendre compte population yi xaalis bi nga xam ne moom lu ñuy gérer naka la doxee là aussi final l'habitude Asifor yi duñ ko def donc bu demee ba ci biir nag gars yi dootuñu wóolu Asifor yi mu indi ay jafe-jafe de sorte que bu forage bi paanee pour ñu defar ko problème la da ngay gis ci biir région de Kolda ay forage yi nga xam ne doxuñu lu tax doxuñu parce que dañu am problème batterie batterie moo leen téye investissement bu jar téeméer million benn batterie buy jar soixante mille soixante cinq mille moo ko téye pour mu dox xam nga loolu aussi doy na waar bon ci dëkk dëkk bu nga xam ne aussi ay ay téeméer ay téem ay wala ay junni nit ñoo fa nekk loolu dafa doy waar bon moo tax nag ñu indi réforme bi pour que problème yooyu. ñu bañ ko tey tey bu ñu doon wax défi défi réforme bu bees bi défi.
bon défi bi mooy joxe ndox à tout moment am na exemple yi nga xam ne mën nañu ko citer ci biir département de Médina Yoro Foulah. commencé nañu def ay gérance mooy dëkk bu ñuy wax Dingiraay commune de Dingiraay. foofu seen forage dafa paanoon. lu yàgg ñu toog presque ñetti weer amuñu ndox. amuñu moteur. léegi nag bi ñu laajee pour ñu ñu ñu ñu wutal leen moteur état bi kii direction bi ne balaa ñuy def balaa ñu leen jox moteur il faut que ñu mettre en place gérant bi mais bi ñu fi tegee gérant ak léegi amul problème mosuñu am rupture ndox donc dañu am ndox 24 heures sur 24 te beneen défi bi mooy gars yi dañuy fay ku fayul rek gars yi dañu lay couper amul négociation parce que on met tout le monde au même pied d'égalité képp ka nga xam ne kii. indi nañu la sa facture délai bi jot nga war a fay fayoo dañu lay couper amatul ay arriéré ay kii ni amul bon peut-être que bon Médina Yoro Foulah aussi même chose depuis que gérant bi nekk fa ndox manquéwul ab bon ñu ngi am ndox vingt vingt quatre heures sur vingt quatre bien que ab Médina Yoro Foulah am na quelques problèmes parce que am na ñu bëri ñu nga xam ne peut-être que du ñu nangoo fay fay bi demeewul noonu bon mais quand même Euh, problème ndox bi quand même. am na amélioration et je pense que boo boo defee benn micro trottoir. laajte waa Médina Yoro Foulah ak waa Dingiraay peut-être que danañ gis amélioration am na ci diggante ci ci ñaari dëkk yi mais ñu ngi prolonger quand même pour dem fen ci yeneen dëkk yi aussi.
tey bu ñu naree bu ñu naree waxtaanee li nga xam ne moom mooy gérance boobu noonu def ngeen ko Dingiraay dox na def ngeen ko également Médina Yoro Foulah dox na peut-être feneen ak feneen dox na waaye ci biir arrondissement Fafakuru ñaari forage dafa nekk bu ñu ko mënee bu ñu ko mënee jàpp ndax dañuy ne peut-être la commune de Badion am na benn et la commune de Fafakuru tey ban genre défi lañu war lan la nit ñi war a mën a teg pour mën a tolloog Dingiraay wala tolloog foofu tolloog Médina Yoro Fula.
waaw défi bi yëpp mooy lenn ah mooy gérants yi les gérants sont déjà connus gérant bu war a dem Fafakuru xam nañ ko gérant bu war a dem euh, euh, fële euh, si dëkku dëkku kii bi. euh, Pajom bon Badion moom pareegul parce que c'est un forage qui est en cours mais am na benn forage euh, bu nekk. euh, Lengeje voilà Lengeje bon ah kooku aussi le gérant est connu. bon peut-être que xam nga pour pour processus bi dafa xaw a dafa xaw a diis. waaw dafa xaw a diis mais du ñu bëgg aussi après après hivernage bi. ñu mettre en place gérant yépp. parce que OFOR am na ay agrément yi nga xam ne joxe nañ ko ba pare. jox nañu ko gérant yi ba pare. comité de pilotage yi mettre nañ ko en place avec les les autorités administratives. ak les communes. léegi lu des rek mooy euh, ñu jël gérant bi ñu ñu installé ko. donc avant cela quand même danañ dem waxtaan ak population yi xamal leen que gérant yi danañ ko danañ ko indi. pour que bu ñëwee rek mu mën a ko ko commencer liggéeyam.
gérant yi yaa ngi wax gérant yi mais peut-être am na ki nekk ci au fin au fin fond mi ngi déglu la rajo peut-être xam mënul mënul distinguer lan mooy lan mooy gérant bi d'abord quoi.
waa gérant bi mooy ki nga xam ne bu ñëwee liggéey bi nga xam ne pratiquement moom la Asifor bi doon def moom moom lay def moom day ñëw ànd ak moyen am gasoil moom moo koy jënd xam nga forage bu njëkk da doon am rupture de gasoil gasoil bi gérant bi moom moo koy jënd gérant bi moom mooy fay conducteur forage bi gérant bi moom mooy euh, euh, re- def euh, réparation yi gérant bi moom mooy euh, def facture yi mooy recevoir xaalis bi important mooy bu fekkee jot na xaalis bi am na benn montant ba nga xam ne duñ koy wax pour mu déposer mu mu jox ko comité de pilotage bi kooku pour amortissement équipement yi bu fekkee am na lu lu deeku lu mel ni batterie bu ñu war a changer bon euh, wala ñu daw pendant quelques années ñu war a remplacer équipement yi xaalis boobu dañuy wax ne dañ ko verser comité de pilotage mooy bi mu waxoon sànq ñoom ñu gérer ko ñoom nag dañu war a ubbi compte dañuy war a ubbi compte ñu dugal xaalis bi ci compte boobu pour que ëllëg bu amee problème ñu mën ko kii parce que lu ñu ci bañ mooy xam nga gérant bi dafa ñëw bon du ñu bañ mu am jafe-jafe gérant bi dem ànd ak euh, da yóbbaale xaalis xaalis euh, ki- bi nga xam ne Collectivité.
collectivité bi moo tax ñu ne waa collectivité yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yore euh, comité de pilotage bi ni ñuy gérer euh, fonds d'amortissement bi voilà voilà mbokk yeeg xarit yi yéen a ngi déglu bu baax a baax li nga xam ne rek moom mooy seen ganu tey ci ci seen rajo Mamakunda FM 88.7 comme ni ñu koy defee alxamis ju jot ànd ak chef de service yi waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne rek moom moo xew jamono ji tey nag ñu waxtaan ak ñi nga xam ne rek moom ñooy waa hydraulique tey fii lañ nekk ci bureau monsieur Thiam tey ñuy waxtaan ak moom ci li nga xam ne rek moom mooy la nouvelle réforme dégg ngeen bu baax lu mu wax par rapport ak gérant bi dégg ngeen bu baax également par rapport ak li mu wax ci comité. de de pilotage bi ci li nga xam ne rek moom mooy nouvelle réforme bi ah euh, am na nag joytu bu bëri boo xam ne peut-être population bi ñu ngi koy def ñun amuñu forage ñii di naan ñun am bu ñu amoon forage lii lañ koy deere ñii bu ñu am li ñu amoon forage ñun nee lañ koy defee waaye nag lu ñu mën ci jàpp rek mooy euh, forage yi euh, yaakaar naa bu ñu ko installé ci commune mën na accorder lu bëri ci ay ay dëkk.
oui effectivement donc euh, jërëjëf ci question boobu xam nga waxoon naa la ci sama njëlbeen wax ne am na forage yu bëri yu ñuy yu ñu réaliser mais du ñu mettre l'accent sur euh, ci ci département Médina Yoro Foulah donc am na ay programme yi nga xam ne euh, def nañ ko programme bu njëkk mooy PEPAM Union européenne PEPAM bi nga xam ne waa Union européenne ñoo ko financé PEPAM Union européenne boobu dañu xool parce que réforme bi mu amee da ci ci biir euh, ki- kii territorial bi réforme boobu bu mu amee dafa am ay communes yu bees yu ñu créé woon communes yooyu lu mel ni commune de Bignérabé commune de euh, Koulinto mu amoon ak yeneen commune ci biir département bi ay ay ay euh, Buruko dafa nekkoon ay communes yu création yu bees ay bajjo.
ay Badion yooyu yëpp amuloon forage mais dañu ne léegi ci communes yooyu chef lieu de communes yooyu nañ fa def forage donc fo dëkk yooyu yëpp tey boo fa demee gis na seen forage yi ñu ngi en cours de réalisation loolu mooy li nga xam ne moom la PEPAM Union européenne def te lu si am solo mooy forage yi bu njëkk dañuy def ay forages villageois mais actuellement on fait des forages multivillages maanaam benn forage dëkk yi nga xam ne moom la polariser yëpp ñu xëcce leen ay robinet ay tuyaux donc loolu dafa am solo bu ñu xoolee aussi ci biir département de Médina Yoro Fula toujours am na beneen projet ba nga xam ne PUDC Chine moo koy def PUDC Chine daf day def ay forage ci Ndawen Ndawen mooy ci biir commune de Dingiraay am na forage bu ñuy def ci Bayungu dans le Ndorna forage multivillage am na forage ba nga xam ne ñu ngi koy def Dingiraay dans le Buruko am na forage ba nga xam ne ñu ngi koy def Tamasin Niassène dans le Buruko Médina Sili dans le dans le Buruko Saare Doro Thiam dans le Buruko am na yëpp nga xam ne PEPAM kii PUDC Chine ñoo ko financé forage yooyu yëpp ñu ngi en cours am na Yeddulaay aussi Yeddulaay aussi am na forage bu ñu fa def donc foofu lépp li nga xam ne lu jëm ci trou trou bi mooy forage bi boobu gas nañ ko ba pare ba réceptionné nañ ko château d'eau yi nag gars yi ñu ngi ci en cours ak teg tuyaux yi ci biir dëkk yooyu ak dëkk yi ko wër donc programme boobu ñu yaakaar ne fii ak décembre dana mën a décembre ba janvier dana mën a pare ñu livrer ko am na aussi beneen programme ba nga xam ne aussi USAID mooy USAID Access waaw bon mooy ñaari forage yi nga xam ne gars yi commencé woon nañ ko mooy Medina Passy ak am na beneen dëkk bu ñaari forage la ñi nga xam ne ñoom waa USAID PEPAM ñoo ko commencé woon USAID accès dañ danañ ko pare dañuy dañuy dañuy pare dañuy def forage yooyu su ñu pare ñu yaakaar ne ci biir Médina Yoro Fula programme yooyu bu be bu jeexee parce que même biir Niaming Niaming am na ay projets yi nga xam ne dañuy def gasoon ay forage mais forage yooyu jeexul mais duñ ko dugal ci biir programme PUDC Chine. pour ñu mën leen defal ay château d'eau ak ay réseau ñaaming aussi boo demee foofu gars yi ñu ngi ci ci liggéey boobu. donc c'est dire que mettre nañ vraiment accent. ci biir commune ci biir département de Médina Yoro Fula. am na ay programme aussi yi nga xam ne war nañ démarrer mais démarrer guñ. mais aussi après l'hivernage bu si yàlla àndee d'après les prévisions danañ danañ démarrer. am na forage ba nga xam ne aussi prévoir nañ ko ci biir Touba ci Touba Cekkeen prévoir nañ fa forage avec BID UEMOA beneen programme la BID UEMOA ak am na aussi benn ñaar ñebbe xaw ma bon en tout cas am na forage yu bëri yi nga xam ne ci biir kii ci biir département Médina Yoro Fula programmé nañ ko avec différents différents programmes c'est li ñu bàyyi li ñu ci gën a seetlu mooy des fois da nga gis exemple benn dëkk moom mooy moom mooy maanaam moo abrité forage bi mais yeneen dëkk yi en général dañuy maanaam forage bu bees bees bi ñi ngi ànd ak forage bi mais day jékki-jékki rek moo am benn rës je ne sais pas on ne sait pas exactement rës bi fan lay jógee peut-être village yële ñoo déggoon ak village comme ni nga ko waxee bu njëkk ba problème de gestion la peut-être mais en général ci gëstu bu ñu def forage yi bëri maanaam problème addition bi moo leen indi problème.
voilà effectivement loolu li nga wax dëgg la mooy forage yi nga xam ne xam nga bu amul gestion bu baax. amul carburant bu doy. carburant bu doy du mën a am. bu amul gestion bu baax doo mën a am carburant bu doy. te boo mu amul carburant bu doy doo mën a joxe ndox ci village polarisé yépp parce que pour que nga mën a joxe ndox il faut que nga nga remplir sa château d'eau fii da ngay laajte forage yu bëri boo laajtee ñu ne ay 5 litres gasoil la ñuy utiliser par jour ñu ne la ay 7 litres te loolu mënul doy pour mën a satisfaire demande bi léegi boo xoolee cas Médina Yoro Fula am na ay dëkk yi nga xam ne dañu sori yu polarisé yu tuyau bi jaar mais gën ñu am ndox mais depuis gérant bi dem ñu ngi am ndox ñu ngi am ndox donc c'est dire que affaire bi du affaire technique mais problème de gestion la. bu fekkee nag gestion bi jaar na yoon rek forage bi mi ngi fonctionner normalement comme ni mu war a fonctionner rek bopp dëkk bu war a am ndox rek da nga mën a am ndox. waaw voilà am leneen tam loo xam ne peut-être préoccupation bii pa waa commune bu Fafakuru la gis nañ ne waa Taliba jaar nañ fa am na ay tuyaux yu ñu yàq mais ba tey population baa ngi jooytu loolu.
loolu nag vraiment jafe-jafe bu mag la. parce que xam nga ñi nga xam ne ñoo war a njëkk surveiller seen forage mooy population yi parce que man bi may yëg ne euh, tali bi jaar na fa yàq na f- euh, f- tuyau yi dem na wax dëgg yàlla fekk c'était trop tard parce que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoom moom forage bi ñoom ñooy jëfandikoo forage yi bu fekkee am na ñi nga xam ne di ñëw di liggéey si ñu yàq yéen ngeen di teg seen bët ni lii ay tuyau yi nga xam ne tali bi moo ko yàq te tuyau bi forage la mais au moins ñu ñëw ñu inver- ñu informé ñu ñoom seen bopp sax asifor bi fa nekk sax waroon na mën a obligé gars yi pour ñu defaraat parce que kuy ñëw di defar tali boo yàqee tuyau da nga ko war a defaraat mais bu fekkee ñoom ñu ngi seetaan ñu ngi seetaan ba affaire bi gars yi dem seen yoon ñu ñëw encore ñu ñëwaat naan affaire bi yàqu na xam nga loolu dafa doy waar te ñoom euh, affaire bi dafa xaw a métti daal. donc loolu lu ñuy mën a ñaan rek mooy population yi. vraiment parce que même keroog ñu ngi doon def benn réunion ci loolu. ñu ngi ñaan population yi képp ka nga xam ne kii day ñëw di gas di defar di liggéey fi nga xam ne forage moo fa nekk. te bi muy buy liggéey ñu gis ne waa ji mi ngi toj ay tuyau wax dëgg yàlla ñoom seen bopp nu ñuy informer à temps ñu informer autorité administrative yi parce que bu ñu leen informer ñun danañ wax ak entreprise bi fa nekk ne dañ ko war a defar te balaa ñuy jógee foofu danañ ko defar waaw bu ñu bàyyee ba gars yi dem ñun amuñu coordonné gars yi xa- amuñu xamuñu fan lu ñu leen di amee fan lu ñu leen di jotee là aussi vraiment ay jafe-jafe yu mag la parce que mais kon kon solution par rapport à ça wala ba tey nuy dañuy jàpp ne tuyau boobu yàqu na daal yeneen village yi nekk ci yoon bi maanaam tey naka la ñuy def ba dalal ñooñu seen xel.
waaw lu ñuy def ba dalal ñoolu seen xel mooy bon jéem a xool jéem a xool ak ñoom parce que xam nga ñoom bi ñëwee di du di di root ñoom ñoo yore coordonnées gars yi. te ñoom officiellement aussi kenn ñoom kenn ci ñoom mënuñu wax exactement ce qui s'est passé.